daam mbaa jàmm nga yendoo maa ngi sant bu baax Ousmane.
waa jërëjëf euh, daam dañuy tàmbalee ci euh, Donald Trump muy président bi euh, xam naa munta ñàkk dafa mel ni li nga xam ne yëkkati woon na ko pour mbirum visa yeeg yooyu teg na ko ci suuf waaw fi mu nekk nii jamono bi may wax ak yow nee nañu ñi nga xam ne ñoo nekk avocat yu nekk ci ministère de la justice bi fii du attorney general's office department of justice lañ koy wax fii ñoom bind nañu ñi nga xam ne ñooy cour d'appel bi ñu waroon a bi ñu waroon a bi ñu waroon a àttee mbir yi bi ñu waroon defee appel ñoom ñu ne dañ koy teg ci suuf mais jamono bi ñuy wax loolu teewul Donald Trump moom buy wax danaan see you in court dafa mel ne mi ngi continuer di di di di bàkku ne danañ dem bëre ji de toute façon daañu loolu nga xam ne gars yi def nañ ko etu danañ ci de danañ ci dem ba mu jeex waaye loolu bu ko waxee xaj na ñi nga xam ne ñooy déglu politique jàpp nañu ne ñooñu lay waxal waaye li nga xam ne mooy fañ koy war a waxe fañ ko war a defee ñi ñi nga xam ne ñoo fay nekk teewal ko fa di yor fa kàddoom bind nañu ñooñ ñoom ba ne leen dañuy bàyyi décret bi dañuy bind beneen bu bees executive order bi bàyyi nañ ko dañuy bind beneen new executive order nee nañ buñ koy bind danañ ko seet ba li nga xam ne moom la code bi wax dañu ne ku amul visa ku amoon visa ba noppi ak ñi nga xam ne dañu amoon green card sax départ bi dañ leen ci boole woon ñi ko jotagul woon a yëg ba dugg ci avion yi sax biñ dañuy ñëw ba ci aéroport yi ñu téye leen wala ñu daal ñu daal leen di delloo plainte yi bari lool mu am ay court yu baree bari yu ne delloo bi nañ ko nañ ko teg ci suuf di ñi nga xam ne dañ leen am ci benn boo xam ne sax ci ci Boston doon def ne téye bi sax amu leen ci droit ba ba ngeen di gëstu seen yëpp bu ñu yekkee bàyyi leen ñu dugg lu ngeen di wax yéen a ko xam ñu mujj dem far ci beneen code boo xam ne sax lépp lu la tereendoo benn yoon mooy du ñu téye kenn du ñu continuer di ko doxal dañ koy bloqué ba bañ koy layoo ji fañ koy war a layoo gouvernement wu kii bi nga xam ne mooy bu Trump dem def appel ñu dem ci appel code bi ñetti juge yi daje ne ko lële juge ba la waxoon ne dañ koy bloqué ca ca Washington Seattle noonu lañ lay bloqué yooyu ba ngay yéeg di yéeg di wax ba mu nar a dem Cour suprême bañ ko waxee yaa ngi fàttaliku Trump def na woon si in court ñëpp ne dañ ko dafa naroon def appel appel boobu mu defoon waaye mujjewul def appel buy wax nag moom dafa mel ne ñi koy déglu ci wàllu politique ak ñi ko woteeloon ñooñu lay waxal mi ngi wéy di wax naan si une cour daañu dinañ def appel bi mais ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a waxal fañ ko war a waxee ca tribunal ba nee nañ du ñu def appel bi léegi li ñuy def mooy dañuy bindaat beneen bu bees bu ñuy bindaat beneen bu bees danañ bàyyi xel ci li leen cour bi tere woon.
danañ bàyyi xel ci li leen considéré woon waaye dafa am beneen mbir itam boo xam ne bi jóg na ci jamono yi immigré yi nga xam dañuy dem seen kër di leen fëgg ak yu demee noonu di leen dajale daam loolu doy na war waaw xam nga ay ay bis gi wees soow lu rëy dafa am ndaxte dafa am quartier yoo xam ne dañu xëy gis immigration ñu def ay check point nit ñuy romb ñu di leen daw ñu di leen woo di leen laaj wala ñi nga xam ne dañuy fëgg seen i kër dugg ci fa ba nee nañ sax ñoom jot nañ cee jàpp lu mat juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk waaye nag xam nga li ñu ne wax naan tombé waral ay gaaf dëgg la loolu ñi ngi ko doon ñi ngi ko doon def ci jamonoy président Obama ay reet lañ ko tudde woon ñoom immigration nangu wuñ ko nee nañ enforcement sélective lañ koy tudde waaye ay reet la dañuy jékki-jékki fëgg ci ay bunt nit ñoo xam ne dañu leen a jàppoon yóbbu leen tribunal ba ñu waroon a génn ba ñu waru leen a génne ba nga xam ne seen mbir àtte nañ ko ba pare léegi nag dañuy wër ñu mel noonu bi yoon dañ ko defandoo nag mu feeñandoo it surtout dañ cee yokk ay quartier ay ay quartier ak dëkk yoo xam ne daawuñu ko fa gis mu baree fa noonu ñëw nañu ba yegg ci New York sax jëm jëm ci ci loolu mais nag liñ naan tombee waral ay gaaf comme mbiru Donald Trump dafa yàgg a wax ci mbiru immigration xaj na ba ko président Obama di def daawul woon ci wén ni waaye doon nañ ko def nag wax dëgg yàlla nit ñi bu ñu jàpp ne lu bees a bees la ñu loo xam ne fu ñu dul yox ci mbedd bi ñu ngi geer toog di seet ak yooyu du lu bees jamonoy Obama doon na am xaj na daawul ci wén ni xaj na itam média yi niñ koy toppatoo fi mu nekk nii ndax président bu bees bi daawuñu ko do toppatoo noonu mais dafa am loo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy assister ay immigré yi ñi nga xam ne ñoo leen di taxaw ñoo leen di dimbali ci lu jëm ci wàllu yoon am na ay wax yoo xam ne ñu ngi koy siiwal yoo xam ne mat naa bàyyi xel loolu mat naa déglu nee nañu bu fekkee ne nit dafa fëgg bunt ne ne ne la immigration la bul ko ubbil bul ko ubbil da nga koy wax ndax am na court order bu ko fi yebal court order boo xam ne judge moo koy signé court order judge bi rek moo am moo am droit signé ko ñoom seen ay ci seen bopp mënu ñu signéel seen bopp ñëwal seen bopp pour seet si nit di ko jëli bu bu bu ñu fëggee ne la immigration la ne ne leen du ma ubbi li fekk waruñu la code order nañ la ko glisser sa porte bu ñu la ko glisser nga xool ko bu baax ba mu wóor la ne lii judge moo signé wax leen ne am nañ droit ñëw ci kër gi bu ko defee nga door leen a ubbil am na leneen loo xam ne itam avocat yooyu ak ñi jëm toppatoo wàllu yoon tey jàppale immigré yi nee nañu fexe leen ba bu leen ko def mukk buñ nee ndax diwa ngi fi te diw ne fa bul ne mukk nekku fi parce que loolu boo ko defee feloni la yow soo nekkee immigré soo ko nekkul soo amee kayite soo amee passeport réew mi soo ko amul buñ la nee ndax diwa ngi ci kër gi nga ne déedéet bu ñu ko seetee ba xam ne ma nga foon feloni la yow ba loo mbir mën na la cee topp ñaar yooyu daal mooy li nga xam ne ñooy toppatoo wàllu yoon woowu moom la ñuy insisté nee nañ bul ubbi am nga droit ne du ma ubbi li fekk wonuñu la këyit gu leen won ne dañu dañoo am dañoo am droit ñëw fii seet si waa kër gi bu bul ne itam diw nekku fi bu fekkee diw mi ngi ci kër gi bu fa nekkul nag mën nga leen ne nekku fa bu dee lu wóor la waaye bu fa nekkee bul ko wax ndax daf lay indil ay jafe-jafe la.
waaw daam loolu day xam naa ne lu am njariñ la ci ay xalaat yoo xam ne yi mën nañ koo gànnaayoo des na itam ci benn mbirum politique fi mu nekk nii Trump ba léegi nomination yi jeexagul ñu ngi koy seet ak lañ bat.
waaw fi mu nekk nii daanaka ñi nga xam ne ñooy cabinet ak fonctionnaire yi nga xam ne ñoom la jël genn wàll gi rek daanaka ñoo jotagun a jàll ki ci mujj tey ji defe naa mooy ki yor mbiru environnement EPA mais am na ci ay jafe-jafe lool ci ñi nga xam ne mooy fonctionnaire yu bees yi ndaxte daanaka ñaareelu poste bi gën a am solo nga xam ne moom la ñuy yor ci ci gouvernement muy ki yor mbiru renseignement yeeg national security adviser général bi nga xam ne moom la jëloon ñu di ko wax ñu di ko wax général Flynn général Flynn dafa mujj démissionné ndaxte général Flynn bi ñu ko jëkkee joxe wax turam nga xam ne kooku mooy toog ci wetu président bi lépp lu jëm ci mbiru kaaraange réew mi moo xam kaaraange ay koom-koom mi la moo xam kaaraange militaire bi la moo xam kaaraange yëddu yi nga xam ne moom lañ koy defal yépp ci loxoom lay nekk général Flynn moomu moom dañu dañ ko ne bi ñuy def campagne électorale bi bi nga xamee ne Trump gagné na waaye jëlagul woon lenge yi daf dañ ko dañ koo jàpp muy wax ak réew moo xam ne bu dul noonu réew mi itam wu jëm wu mag a mag la ñu di ko wax Russie Russia ñu ne général Flynn moomu dañ koo jàpp muy waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo doon waa Russia daf xam nga Russia dañu dafa am affaire yu ñu defoon dugg ci mbiru élection yeeg yooyu ba président Obama jël ay sanctions teg ko ci seen kaw et puis ñu dugg ci réew mu mel ne Crimée ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daal lu ñu def la ba Amérique ne leen dañ leen di sanctionné léegi général Flynn moomu nag de de xam nga yoon dafay tere ñu boo nekkul fonctionnaire Amérique bu ñu yónni amuloo droit négocier kenn ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu wàllu diplomatie wu Amérique ñu mënuloo négocier ak meneen réew mënuloo négocier keneen ci turu gouvernement wu Amérique mu ne woon nag moom négo loolu mësu ko wax ak ki nga xam ne mooy ambassadeur Russia bi mu jot a waxal fii ci Washington waaye ba bañ ko ko waxee vice président woo ko ne ko mbir mi nu mu demee mu waatal ko ne ko mësuma ko mësuma wax ak moom lu jëm ci loolu ba ndekete booba FBI ñi mi ngi ko doon gëstu mi ngi leen doon yëddu moom ak ñeneen ñoo xam ne ci campagne wu Trump la ñu bokkoon ndaxte dañu seetlu ne daal jamono boobu ñu ngi wax ak ñoo xam ne ñoom waa FBI xam nañu ay agent secret wu Russia la ñu doon xamuñu ndax ñu waa kër Trump xamoon nañ ko wala la wala déet ñoom ñu ju def seen i pexem ngir yëddu leen bu baax a baax ba leen mbir yi tàmbalee jaaxal ñu yëgal ko président Obama ma nga xam ne moo fi nekkoon président jamono boobu yëgal ko itam Trump mi nga xam ne moo doon xaar ñu jox ko lengee ne ko te gars yi ñu ngi wax ak ay agent secret wu Russie général Flynn moomu nag comme dafa ne vice président bi mësuma ko def ba vice président dem ci télé yeeg rajo yi ak journaux yi di ko fa waatal ba mu dellu si waatee naan wóoratuma sax wax naa lu jëm ci loolu ñu mujj woo ko ne ko yow da ngay bàyyi Trump ci boppam moo ko ne bindal sa lettre démission ndax yaa waxoon ne mosuloo wax ak gars yi loolu te Trump ci boppam nee nañu FBI wax jotoon na ko wax ba noppi loolu moo tax mu dem léegi amoon beneen général boo xam ne Harvard la tudd Trump amoon ci yaakaar ci moom jël ko ngir mu wutu ko waaye kooku nee na ko daal sama sama famille ni mu mele sama njaboot ni mu mele tax na liggéey boobu duma ko mën a def fi mu nekk nii moom daal jàpp nañu ne tàmbali di am ay jafe-jafe ci ku muy jël ci lu mel noonu am na itam ki nga xam ne moom la moom lañ doon dénk affaire njàng mi secretary of education moom ci boppam gars yi dañ ne am njàngam sax dafa doy waar ba nga xam ne dañu mujj ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti wu Trump di sénateur yi ñoo mujj ne ko sëñ bi soxna si wax ko mu rocc ci turam wala bu ko deful bu ñëwee fii itam boo moytul gàcce ngeen ciy mujjee kooku itam li mu mujjee mooy bàyyi ne dematuma moom daal ci mbiri confirmation yeeg poste yu mag yee mag a mag xaw na ci am ay jafe-jafe dëgg-dëgg ndax am na gaa yoo xam ne daal dem liggéey ak moom ci mbir yooyu ñu ci bari journaliste yi gëstu ne nañu dañu wax ne fee moom yëpp naa dugg bu la fa yëf yi fekkul woon ba noppi.
jërëjëf Dame ñu ngi lay sant di lay gërëm di lay ñaanal jàmm ba àjjuma dellusiwaat.